أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ginnaaw buñ leen ziyaaree ci weer wi baalu leen ak baal leen ñoo ngi ba tey ci suratul baqara di tàmbalee aaya 99 ba aaya 101 muy ñetti aaya ñetti aaya yi nekk sunu kanam ما زال سياق الكريم في التقرير نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعموم رسالته والرد على اليهود وإزهار ما هم عليه من الفسق والكفر والظلم أينك سنكنم دجل buur tabaraka wa taala di ci saxal nekkug yonent yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam aaya yi dañul li ñu war ne yonent yàlla muhammad yàlla mooy ki ko tànn yónni ko def ko yonent waaye aaya yi nekk sunu kanam ba tey dañul di tont di delloo ay tont yahud yi ak di feeñal li ñu nekk ci kawam di feeñal seeni pas-pas ak seeni ngëm-ngëm ak yi ñuy nëbb ci kàccoore ak kiifir ak tooñ borom bi tabaraka wa taala ci aaya 99 bi mi ngi ciy tont delloo tont kenn ci yahuud yi tuddoon suuriya ne woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa jitanaa bi shay'in lépp loo ñu indil ci wax mu nekk dëgg ñun danañ ko jël aaya bi daal di wàcc ñu daal di lànk bañ a jël comme niñ ko waxee woon téeméeréelu aaya bi borom bi tabaraka wa taala mi ngi weddi yahuud yi di bañ di leeral seenu kéefir ak sànni gi ñu sànni dig contrat pacte bi ñu signante woon ak borom bi tabaraka wa taala borom baa ngi leeral seen ñàkk ngëm borom baa ngi leeral ne ñoom amuñu kóllëre parce que lu nu wax duñ ko def ci ay téeméer ak benn bi yàlla tabaraka wa taala mi ngi leeral pas-pasi boroom xam-xami yahud yi te mooy sànni gi ñu sànni tawraat ci àll ba di jëfe seeni bànneexi bakkan suñu gisee lii lépp nag borom bi di ñu ko leeralal ci alquran ñun jullit yi mooy pour ñu bañ a mel ne yahudi ñetti aaya yi su neexee bul yàlla tabaraka wa taala ci mën-mënam ak kàttanam ci la ñuy jeexal ngoonu tey yi insha allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما أهدوا أهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون يقول جل وعلا بور بنينا ولقد والله جنات سما مكاي maa ngi giñ ci sama màggaay man borom bi tabaraka wa taala anzal naa man yàlla wàcce na ilayka ci yow muhammad ayatin ay lay bayinatin yu leer nañ ay aaya alquran man yàlla tabaraka wa taala maa wàcce ci yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam alquranul karim alwaadix ay aaya yu leer ayatul quran alkarim alwaadixa fi ma tadullu alayhi min maani wàcce naa ci yow jox la ay aaya ay wax yu leer nañ yoo xam ne dafa ëmb ay maana borom bi ne wàcce na ci yonent yàlla muhammad walaqad anzalna ilayka man yàlla maa wàcce ci yow muhammad alquran ilayka lan laa wàcce mu ne aayaat ay aaya bayinaat yu leer muy alquran leer na ne alquran du waxu yonent yàlla muhammad waxu kan la waxu yàlla ndax yàlla moo ne ko anzalna man yàlla maa wàcce ilayka kon alquran waxu yàlla la yàlla tabaraka wa taala moo ko wàcce ci yonent yàlla muhammad waaye déglul li ci tegu mu ne wa ma yakfuru biha illa alfasiqun alquran bi ti kenn du ko weddi lu dul kàccoor kàccoor rek dañ naan yàlla nee na mu naan waaye wa ma yakfuru biha du weddi alquran illa alfasiqun lu dul kàccoor wa ma yajhadu bi kawniha kitaab allahi wa wahyihi ila rasulihi muhammad kenn du ko weddi kenn du jaay dëgër bopp ci alquran di wone ne lii du téere yàlla waaye yàlla waxu ko yàlla wàcce ko ci yonent lu dul alfasiq man huwa alfasiq alxaarijuna amma yajibu an yakunu alayhi min aliman min aliman billahi walislami lahu zahiran wa batina kàccoor alfasiq mooy kàccoor kàccoor mooy koo xam ne dafa wàcc raay bi mu waroon a dox yoon wi mu waroon a dox daf ko wàcc li mu waroon a gëm da koo gëmut li mu waroon a topp da koo topp da koo topput moo tax mu nekk kàccoor alxaarijuuna amma yajibu an yakunu alayhi ñi nga xam ne weddi nañ la ñu waroon a topp min min al imaani billahi ci gëm yàlla wal islaami lahu jébbalul ko zahiran wa batin kon képp koo xam ne ci mbindeef yi koo mën a doon rawatina na nga nekk ab jullit nga lànk bañ a jaar ci yoon wi la yàlla jaarloo nga lànk bañ a def li la yàlla defloo yow kàccoor ba képp koo xam ne da ngaa waroon gëm yàlla gëmoo ko da ngaa waroon jébbulu ci moom jébbuluwoo yow kàccoor te kàccoor kat moom naa fekk ñoo yem àtte kàccoor moom naa fiq benn lañ te naa fiq yàlla nee na naa fiq mooy xuur ñu safara jàngeen ci alxuraan yàlla mu ne naa fiq yi ñooy kàccoor yi wala jàngulee ko ah innal munafiqin humul fasiqun yàlla mu ne naafiq yi ñooy kàccoor yi kon naafiq yi kàccoor yi benn lañ li mu nekk ni ñi ngeen gis ci mbedd yi ñuy ndékki di añ ay kàccoor lañ ñoom ñëpp ñoom naa fiq yi ñoo bokk at puisque dañuy wootewu lu nekkul ci ñoom lan la ñuy woote ngëm bu dara des lu dul jëfe xaw loolu mooy melokaanu naa fiq naa fiq mooy kuy wax ne man gëm naa yàlla dara dañuy lu dañoo war a woor mu commencé bi mbokk yi góor yi ñëw leen bi bàyyi leen foofu ak jigéen mën ngeen daa jege si am ngeen bàyyi ginnaaw gi ak jigéen ñi bu leen ragal ñëw leen kon alquran ku ko weddi rek kàccoor nga yéeféer nga wa ma yakfuru biha du weddi alquran illa alfasiqun lu dul kàccoor yi kàccoor yi mooy ñan mooy ñi amul ngëm ñan ñooy kàccoor yi mooy ñi nanguwul jébbulu ci yàlla zahiran wa baatin jébbulu yàlla lañ koy def zahiran wa baatin li feeñ ak li nëbbu yépp koo koy jox allah subhanahu wa taala léegi nag ñun dañoo jox yàlla zahir bàyyi baatin bi zahir bi ci biti ñu ne ñun ñun jullit lañ dara des lu dul njullite gi nag dafa war a feeñ ñu lànk te kii jébbulu ci yàlla zahir ak baatin lay jébbulu bi ngeen di jàng islam baat islam biñ koy firi nan la ko borom xam-xam yi firee al istislaamu lillahi da ngay jébbulu ci yàlla jébbulu ngay jox yàlla sa bopp amul réservé wu de sa dara déedéet udxulu fi silmi kaafa diina ji dugg leen ci lépp ab julit du ngarale ay tànkam bëgg weex bëgg ñuul mënul nekk da ngay wax dal maa ngi ñuul ko waaye man gëmuma gëm naa mënul nekk alxuraan daal ku ko weddi rek yàlla nee na kàccoor la wa maa yakfuru biha illa al fasiquun kenn du weddi alquran lu dul kàccoor lu dul ab naafiq lu dul ab yéeféer loolu moo tax ñu war a góorgóorlu ci suñu bopp xam ne ab julit munoo nekk julit lu dul dangaa boole mbooleem arkaan yi nga gëm ko arkaan yi bu ñuy bu ñuy càmbar maratibu diin état bu diine ji danañ fekk mu nekk ñett maratibu diin salaas al islam wal iman wal ihsan islam cër yi mooy liggéeyal yàlla iman xol bi la ihsan mooy loolu xol bi di liggéey mu rafet loolu mooy islam islam cër yi la ponk lislaam ñaata la juróom shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami sala ita zaka sawm ramadan hajjul bayt alaysa kazalik li mooy ponk l'islam lii juróom nag cër yi ñoo koy liggéey cër yi cër yi yaram bi cër yi bopp nopp bët bakkan lex yi gémmiñ gi sikkim bi ba cër yi jeex ba ca xol ba loolu mooy liggéeyal lislaam delluwaatal ci kaw ban ponk moo njëkk ci ponk lislaam yi mooy seede seede lan moo koy def gémmiñ moo koy wax xol bi moo koy gëm gémmiñ gi wax ko cër yi jëfe ko benn lan moo ci tegu iqaami salaa lan moo koy def julli lan mooy julli ci nit xol bi kese nopp yi kese bët yi lépp ay julli kon lislaam cër yi la ban moo tegu ci lis ci ci ci julli ah génne azaka azaka lan moo koy génne alal mooy la ñuy génne lan moo koy génne ah xol bi kese moo koy génne ay la cër yi loxo bi sax moo koy génne ji fu mu nekk joxe kon islam cër yi la ban moo ci tegu ginnaaw azaka du saw lan mooy woor cër yi léppay woor lan moo ci tegu ginnaaw saw hajj aj lan mooy aji yaakaar naa nit ñëwul ne la maa ngi dem maa kaw bare suba nga gis ko mu toog de nga ne ko la mu ne dem naa xol bi dem na gis ngeen moo tax lislaam lu cër yi di liggéeyal yàlla la lislaam lépp cër yi la iman nag alxalb iman xol bi la delluwaatal foofu foofu ñaata la juróom benn mbir lislaam juróom la iman juróom benn al imanu billah lan moo koy def alqalb gëm yàlla xol bi moo koy def lan moo ci tegu gëm malaaka yi lu ci lu koy lu lan la fan fan la ngëm di nekk yonte bi muy wax bi muy firi ngëm lan la wax al imaanu haahuna wa ashaara ila qalbihi mu ne ngëm fii lay nekk ba muy firi waat dafa ne maa waqara fil qalbi day sax ci xol yàlla ba muy weddi arab yi ne woon gëm nañ qaalat al arabu amanna lan la yàlla wax qul lam tuminu walakin qulu wala maa yadxulu al imaanu fii kon iman ci xol lay nekk wala maa yadxulul imaanu fi qulubikum iman duggagul ci seen xol wax leen nag ñëw nañ ñoo ngi ci biir jullit yi jébbalu nañ boo ñëwee doo bokk ci jullit yi léegi nekk nga muslim mu def nag iman kañ la ñu mën a wax ne yow gëm nga yàlla kañ kañ la ñu mën a wax ne yow léegi am nga iman mooy ñu gis la li iman wax li diine ji wax ñu gis la nga koy kon iman xol bi la islam cër yi la naka ngay yoxee ne man nekk naa jullit ba pare yàlla wax nga weddi te ci iman da cee bokk al imaanu bil kutubi samawiya mooy nga gëm téere yi jóge kaw asamaan te téere yooyu la yàlla wax ne walaqad anzalna ilayka ayatin bayinat wa ma yakfuru biha kon soo weddee alxuraan mënatoo gëm yi mënatoo nekk jullit benn baat bu sew benn mbir mu sew yàlla moo wàcc alxuraan ci biir alxuraan la ñu digal julli ci biir alxuraan la ñu digal koor ci biir alxuraan la ñu digal suñu jaamu yàlla yëpp léegi nag ki lànk ne man wooruma est-ce que yow ñema nga te wax man jullit la ñema nga nit ñëw ne la man de wax dëgg yàlla koor gi de wooru ma waaye nag bu jullit jullit laa de nga ne ko wax dëgg ñema nga loolu yow ah nit ne la man de julliwuma nit ne la man de du ma aji màkk parce que màkk dégg naa jaar ca dem yàlla dindi na li ba ne ko léegi daanaka benn néeg rek rek rek rek moo fa nekk benn xeer amul jëriñ tabax la rek ciment ku la wax loolu loo koy doon ku la wax loolu moom ban position la yor ku la wax loolu est-ce que gëmati na yàlla moo tax bu ñu jaawale ngëm balaa muy mën a mat li la yàlla wax nga def su la yàlla waxee nga def nga def yow am nga iman su la yàlla ne bàyyi nga bàyyi am nga iman bu la yàlla ne defal nga lànk yow yaa tuddee sa bopp am naa iman mais amoo iman mbokk yi iman xol bi mooy liggéeyal yàlla mu des benn martaba muy ihsaan mooy léegi li ngay liggéey na rafet an taabudu llaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak ndeysaan gis ngeen foofu lu sew mu ngi foofu nëbbatu loolu mooy lan mooy nit ki moo la sant liggéey ne la def liggéeyal ma yow nga ñëw di liggéey ñaari mbir a ngi nii waajaa ngi liggéey liggéey bi kenn nekk fa ki ko sant liggéey bi nekk ak ki ko sant liggéey bi mi ngi fa ban la waa ji di gën a rafetal ban la waa ji di gën a rafetal waa ji nekkee moo tax ñu ne la ka annaka taraahu ka annaka taraahu bi ngay jaamu yàlla bi ngay julli na mel ne yow yaa ngi gis yàlla na mel ne yaa ngi gis ki la sant liggéey bi mu ngi ni taxaw sa patron moo la wax raxasal ma oto bi baleel ma fii fompal ma fii defal ma lii mi ngi taxaw noo koy defaree nu la neex nga koy defee ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka moo tax ba léegi ci ñun ba léegi ñun ñi laa wax ba léegi nas islaam yi nu suus yi dañ koy jàng mais wallahi ñu bëri si ñun dégguñu ñu bëri si ñun dégguñu loolu moo tax mbir yi mënul baax yàlla moo la sant jëf jëf ji mooy lislaam bi nga koy jëf dangaa gëm ne war nga koo def kon ñetteel bi mooy boo koy def dafa war a rafet dafa war a rafet dafa war a rafet bu dee koor gi da nga koy woor wooral koor bu rafet julli bi na rafet aji màkka bi na rafet yonent bi nee na même bu ngeen di rendi sax na rafet rendi wala paaka nga yor di tuur deret rendi ni méttee ñu ne yeneen nan lay rafetee mu ne daas daas leen paaka bi mu ñaw ngeen ñàtt li ngeen di rendi mu teel a dee noppal même sax boo nekkee ouvrier di liggéey yonent bi nee na yàlla tabaraka wa taala bëgg na kenn ci yéen buy liggéey ida amila ahadukum amalan an yutqinahu kenn ci yéen buy liggéey mu rafetal liggéey gis nga daa nekk mënisi benn waay sant la lalam na rafet nan lay rafetee mooy defal li ngeen wax ba pare mu pare ci waxtu wi ngeen ko waxe bu dee kër gi la kazalika noonu la da ngay tabax tabaxal tabax bu baax dene bi la waa ji jox na mat lu nekk rek na rafet loolu mooy ihsaan léegi nag hal jazaa'ul ihsaan illa al ihsaan soo defee lu rafet suñ lay fay ñu fay la lu rafet loolu moo tax foog ñu delluwaat jàngaat texte yi waaye jéem koo dégg parce que texte yi du ci kaw kese du ci kaw rek ñuy dem ñuy dem déedéet jàng arkaanu islam lan mooy islam islam mooy seede yàlla kenn la muhammad yàlla moo ko yónni joxe julli joxe azaka aji màkka woor weeru koor du loolu kese iman juróom benn la gëm yàlla gëm malaaka yi na mu daal di jeex ihsaan rafetal jaamu yàlla moom la yàlla mu xam ngeen ne ki la sant jëf nga taxaw di jëf-jëf ci moom mu taxaw di la xool ak su fa nekkulee xam ngeen ne du benn yéen ñëpp xam ngeen lool ki la sant ne la defal taxaw di la xool ak ki la sant dem ñaar yooyu du benn de imagine leen tey bu yàlla taxawoon sunu kanam ne la julli ngay julli yàlla taxaw di la xool nooy jullee pourtant amul s- benn bi rek la yow yaa jàpp ne yàlla gisu la yow yaa ko gisul mais moom mi ngi lay gis moo tax ñu ne la fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka yàlla mi ngi lay gis moom parce que yow yaa tollul ci iman foo gisee yàlla ci julli gi ngay julli dañ leen soo sujjóotee jege nga ko huwa aqrabu ilaykum min hablil warid moo leen gën a jege seen buumu xol yi mbokk yi borom bi tabaraka wa taala mu ne walaqad wallahi man yàlla maa ngi giñ ci sama màggaay anzalna wàcce naa indi naa ilayka ci yow muhammad ayaat ay aaya ay wax téere bayinaat lay yu leer mu ne wa maa yakfuru biha du ko weddi illa alfasiquun lu dul kàccoon man yàlla wàcceel naa leen alquranul karim mu ëmb ay lay yu leer yu ci nekk waaye du ko weddi lu dul ay kàccoon du jébbalu ci aaya yooyu du ko nangu du nangoo jëfe aaya yi lu dul ab jullit ku ko weddi rek ab yéeféer mu ne awa kullama ahadu ahadan waaw awa kullama moo mbaadu saa yoo xamante ne ahadu waxante nañ ak man ahadan wax ahadu signante nañ ak man ahadan benn signature jël nañ ak man benn pacte awa kullama ahadu alhamzatu lil istifham hamza boobu ngeen di gis ci commencement awa kullama hamza mooy alif bu ñu yen bopp loolu ngeen gis alif gi yenu loolu mooy hamza su fekkoon ne nekku fa alif kese lay doon su fa nekkee ci kawam mu nekk hamza hamza bi nag dafa ñëw di laaj gaa yi laaj goo xamante ne istifham lil inkaar la laaju ku leen di yedd ku bañ lañu nekkee wal waaz wal waawu atf waaw googu ngeen gis mu nekk ci mu nekk wa dañ ko cee tofal kon kullama la saa yoo xamante ne ndax du saa yoo xamante ne ahadu waxante nañ ak yàlla ahdan benn wax ah ah ndax du waay kullama saa yoo xamante ne ahadu indil nañ leen ahadan benn mbir ah ndax waay kullama saa yoo xamante ne ahadu siñante nañ ak yàlla ahadan benn signature lan moo ci seen taxawaay mu ne nabazuhu ñu sànni ko fan lañ koy sànni kan moo koy sànni fan lañ koy sànni mu ne nabazahu dina ko sànni fariqun benn kuréel minhum ci ñoom saa yi ñu waxanteeg yàlla rek ñoom yahud yi dina am benn kuréel ci ñoom boo xam ne la ñu waxanteeg yàlla danañ ko sànni ci ginnaaw fala lañ koy sànni ca ñag weddi alquranul karim al ahd al waadu al mulzam dig ahd mooy pacte bu ñu siñenteeg yàlla yépp nangu ko loolu mooy al ahd al waad al mulzam mooy dig koo xamante ne c'est forcé dafa war a am mooy li ñu wax ak yàlla dañ ko war a def lan lañ waxante ak yàlla mooy yàlla moo leen jox tawraat dañ ko war a jëfee comme ñun jullit ñi ni ñu yàlla joxee alquran lan moo ñu war ci alquran bi jëfe waaye jàngoon ngeen démb wala barki démb borom bi tabaraka wa taala ne téere ba ma leen indiloon saa yiñ leen ne gëm leen téere bi ñu ne ñun duñu gëm lu dul la ñu fekke woon sunuy maam sunuy bàyyi nu'minu bima unzila alayna wa yakfuruuna bima waraahu ñun daal la ñu fekke woon sunuy maam gëm rek la ñuy gëm ñu sànni la ñu alquran te ginnaaw lànk bañ koo gëm mooy li ñuy def saa yu ñu leen waxee ne saa yu ñu waxanteeg yàlla yàlla indil leen waxam ne leen lii la defante def leen lii lu ñu siñanteeg yàlla la mu nekk ahad yàlla mu ne nabasahu dana ko sànni fariqun benn kuréel minhum ci ñoom allahu akbar nabasahu ay tarahahu da koy sànni wa alqaahu ñu sànni ko kenn dootul gestu waxu yàlla tabaraka wa taala te pourtant lii yàlla di wax yahudi yi saa yi ñu waxanteeg yàlla benn wax ñu sànni ko daanaka loolu moo dal jullit ñi suñu gisee ci alquran yàlla di fàttali lii ma day bañ li dal yahudi dal jullit yi mais nag tey daf ñoo dalaat ba yonent bi taxaw naan ya rabbi inna qawmi ittaxasu haza alquran mahjura alquran jullit ñi dañ koo gàddaay mahjur lan mooy mahjur mooy kër goo xam ne dañ faa toxu kenn dëkku fa gis nga kër googu lu mu rafet rafet su yàggee ngeen gis miir bi commencé xaar toiture yi commencé dajjeeku kër gi commencé bu doon ay karola mu commencé salte weñ yi commencé xuur lu tax parce que kër gi dañ koo gàddaay kër gi kenn dëkku lu ñu gàddaay mooy loo xam ne dañ koo bàyyi kenn defu fa dara loolu lañ def alxuraan tey dañ koo gàddaay looku ci ñun pacte yi ñu waxanteeg yàlla doo fekk ñëpp di ko respecté comme banu israil saa yi ñu waxanteeg yàlla nabasahu fariqun minhum benn kuréel ci ñoom taxaw sànni li ñu waxanteeg yàlla tey ñu nit lu ëpp ci ñun lu ñu waxanteeg yàlla sànni nañ lu ëpp ci ñun duñ ko jëf ñu ngi ni ci weeru koor gaa yaa ngi mbaxal dégg démb démb am na ko ma doon nettali ci benn dëkk ci Sénégal ndaw si nee na li ma doon jaay restaurant dafa yokk du ma wax turu dëkk bi nag waaw yaa ngi ne xaw ma télé la xaw ma rajo ah télé rajo du ma wax turu dëkk bi de mais ñi fay jaay restaurant nee nañ ñoom li ñu doon jaay dafa yokk kon ça veut dire que dëkk ba ñi woorul ñu ëpp ñi ñi woor ci dëkk jullit dëkk boo xam ne nee nañ kilifa lislaam mu ngi foofu tëdd wala ay kilifa lislaam ñoo fa tëdd dëkk boo xam ne bu ñu waxee tur bi sa xel ci lislaam lay dem ci Sénégal dëkk boobu ñu fay jaay restaurant añ est-ce que loolu nekk na lu jaadu te tey boo leen ne woon yéen ay yéeféer ngeen eh doon ndogu léegi ñu fekk la sa kër taal ko te pourtant ku woorul yàlla moo ne yéeféer la ku nangu bañ a julli yàlla moo ne yéeféer la ku am moyen bañ a aji màkk yàlla moo ne yéeféer la ponk lislaam yi ku ci bàyyi benn te mën ko def lànk bañ ko def yéeféer la jaru muy sonal boppam lislaam bu doon juróomi mbir kese la bu doon juróomi mbir la nga def ñeenti yi ñu ne la benn bi nag nga ne non bii dafa metti dafa mokk sama yoon nekku ci ñeent yi nga def yëpp yàqu na parce que da ngaa lànk yahud yi gëm nañ genn wàllu yonent yëpp benn yonent lañ lànk yàlla ne leen ay yéeféer ngeen gis nga alquran ci biir alquran la ñuy jàng yàlla mu ne soo weddee benn téere wedd nga téere yëpp soo weddee benn yonent wedd nga yonent yëpp kon yëpp ngay gëm ci lislaam li la yàlla sant rek lépp ngay def doo wax ne man lii laay def bàyyi lii amul tànn lépp ngay def wala yàlla mu ne wa maa yakfur biha illa alfasiqoon saa yoo xamante ne yàlla indil na leen benn mbir bu mu waxante ak ñoom léeg-léeg sax dogu am ci signature am ci ñu dogu ne lii dañ koy def waaye bu amee ay fan rek nabazahu sànni ko fariqan fariqun kuréel benn mbooloo minhum ci ñoom lu tax yàlla mu ne bal li wër tey mbir ak saruhum li ëpp ci ñoom laa yuminuna dañoo gëmut moo tax ñuy bàyyi li ñu waxoon gis ngeen di baat bi démb ba léegi ci lañ nekk mooy baatu imaan parce que ku gëm ku gëm du sikki sàkka ku gëm du defantu ku gëm du duggantu ku gëm du waxantu day def ba mu jeex tàkk lan moo tax yàlla mu ne ñii lu ñu wax ak man duñ ko def bal aksaruhum li ëpp ci ñoom laa yuminuna dañoo gëmut moo tax lu ñu waxante ak man duñ ko def il faut ñuy càmbar sunu bopp ci baat yi mooy laa yuminuun aaye fi ñuy jeexee parce que ñun problème bi ñu am mooy ñun chaque jour lañ naan gëm nañ chaque jour ñu ngi ne gëm nañ Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent la ñaata lañ treize millions la ñu am xanaa douze millions yëpp ay jullit lañ n'est-ce pas tey laa mujjee dégg tey ci journal bi ñu ne sëriñi daara yi nekk parcelle dafa am benn animatrice buy génn télé bu ñu bind lettre ne ko bàyyi lu bàyyi li ngay sol wala lu bon rek ngay sol di génn ci télé bi est-ce que animatrice bi rek la ñu waroon bind lettre ah ana borom télé bi télé yi nekk Sénégal yëpp ak rajo yi jullit yi ñoo ko moom wala boog DG yi ay jullit lañ may xoolal li ciy génn xoolal ñi ciy wax ak liñ ciy wax ak liñ ciy def te yenn saay sax nga gis ci ab xalifa général bu ci am télé wala rajo mais léeg-léeg nga fekk télé moo gën a yées ci télé yi wala rajo moo gën a yées ci rajo yi kooku loolu muy wootewu di wax ne moom kilifa la kilifa diine la fan la feeñ ci li mu am fan la feeñ ci li muy liggéeyal yàlla fan man yaakaar naa ne nit ki li nga am ci nga war a liggéeyal yàlla alay sa gazaay ci sa alal yàlla bi mu naan jihaad lan la wax bi amwaalikum wa bi amwaalikum ci seen alal wa anfusikum léegi nag yow alal ji nga am au lieu nga liggéeyal yàlla ngay xeex yàlla li nga am ci nga war a liggéeyal yàlla léegi yow li nga am nga ciy xeex yàlla xeex yàlla mooy lan mooy nga indi programme boo xam ne li yàlla tëral kenn du ko def wàññi ko wàññi nañ bàyyi xel yàlla suy wax ak ñun alxuraan alxuraan bi yàlla pour ñun la ñun ñoo moom alxuraan alxuraan picc yi moomuñu ko xar yi moomuñu ko nag yi moomuñu ko fas yi moomuñu ko alquran pour jullit yi la pour ñu dund ko su yàlla xasee yahud yi ne lépp lu ñu wax ak man du ñu ko def lu ko waral mu ne li ëpp ci ñoom dañoo gëmut moo tax li ñu wax ak man duñ ko def li ëpp ci ñoom gëmuñu est-ce que Sénégal li ëpp ci nit ñi kon gëm nañ yàlla bal aksaruhum ñu nit laa yuminun bal aksaru minna laa numin lépp ci ñun gëmuñu wax rek suñu ngëm yëpp wax la bu nu gëmoon yàlla kenn du bind nit ci weeru koor ñi ñuy bind ab jigéenu jullit di ko bind naan ko xoolal li ngay sol jigéen jooju lañ yab rek ak ñi ñu war a bind lettre kon ci Sénégal ñoo bari ah démb sax démb nit ñi xawoon nañu tane tuuti dañ naan ah ci weeru koor laa nekk man dootuma sol lu bon ci weeru koor lañ nekk dañuy tëj baar yi ci weeru koor lañ nekk dañuy arrêté musique bi ci weeru koor lañ nekk dañuy arrêté sabar yi bu njëkk ba bu nawet jotee gouvernement bi day génne benn loi ñu ne bu fi kenn tëggati bu kenn foo ba nawet jeex loolu sax léegi jeex na te tey ñi am problème mooy ñi bëgg a ñëw léegi ci rajo bi naan non nañ ñu may boog ba koor gi jeex nañu def nii ñooñu ñoo am problème gis nga boo waxee ba pare dañuy yónni juróomi nit ñu ñëw toog ci plateau boobu di daaj ji li nga waxoon naan xoolal bu ñu kenn rey ku nekkul bu ci gudd bi yaa ngi bu ci gàtt bi fii xoolal ñëpp fii ñëpp nàndite lañ xam nañ nu mu dem xool di la jéem a di la jéem a wàññi waaw naan ñii nangam nangam kii lii lay def pour lan pour nañ bàyyi ñëpp def lu bon waaye lu am importance mooy ñun ñu xam ne ñun ay gudd yàlla bu xasee yahud yi ak nasaraan yi ne bal aksaruhum laa yuminuun li ëpp ci ñoom dañoo gëmut loolu moo tax lépp lu ma wax ak ñoom nabazahu fariqun minhum fëral ci ñoom sànni ko fële duñ ko def borom bi continue aaya yi mu ne walamma jaahum walamma ba nga xamante ne jaahum dikke na leen rasulun ndaw min indillahi bu bàyyi ko ci yàlla ndaw loolu musaddiqun li mu ngi dëggal lima maahum ñoom ñoom loolu ñu yor loolu ànd ak ñoom te mooy alquran te mooy tawraat loolu ñu yor foofu yeneen ti ñëw ndaw lu bàyyeekoo ci yàlla rasulun ak tankiir li taazim war rasul huwa muhammad ndeysaan ndaw loolu ñëw yàlla ne wala maa jaahum rasulun min indillah wa min qablihi isa alayhi salaam di ko jiitu woon isa la isa moo ñëw di bégle di yëgal nit ñi ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ñëw yàlla ne ndaw loolu ñëw ci yéen moom bi mu ñëwee weddiwul sax yéen lu ngeen yor waaye musaddiqun lima maahum dafa dëggal la mu fi fekkoon démb ca tawraat ne leen ba ngeen ko soppeegul waxu yàlla la injil ba ngeen ko soppeegul waxu yàlla la waaye lan moo xew nabaza sànni na encore fariqun benn kuréel min allazina ci gaa yi nga xam ne utul kitaaba dañ leen joxoon téere kitaaballaay téere yàlla wara zuhurihim seen ginnaaw benn mbooloo encore ci yahud yi ñoo ñëwati fekk ndaw li nga xam ne yàllaa ko yónni woon mu ñëw indi téere yàlla tabaraka wa taala ne yàllaa ma yónni lan moo tax yàlla tabaraka wa taala saa yu yónnee yonent mu booleeg moom ab téere parce que nit ñi danañ ko laaj loolu ñu naan mu'jiza kéemtaan beneen bi mooy téere yi dañoo ñëw pour orienter doomu aadama yi pour doomu aadama yi xam nan la ñuy dundee jëm ci yàlla loolu la téere yi ëmb yàlla mënoon naa wax gëm leen ma dong mu doy ku ko jaamu boo dee mu yóbbu la aljanna ku lànk mu yóbbu la safara waaye yàlla ak mbaaxam dajale woon nañu ci malaul aala ci alamul arwaax ñun ñëpp balaa ñuy ñëw kaw suuf mu ne ñu alastu bi rabbikum boobu lan lañ tontu woon ñun ñëpp ñu ne balaa aka yow yàlla yaay suñu borom loolu dong doyoon na yàlla wàcce ñu ci kaw suuf nit ñi fàtte yàlla yónni yonent lan mooy sababu yónni yonent pour nit ñi ëllëg duñu wax ne yàlla ah ñun kat xamuñu woon dañ laa war a jaam ñun kat dëgg-dëgg bu ñu demee kaw suuf fekkuñu fa gisuñu fa fekkuñu fa amul ku ñëw ci ñun ne ñu jaamu leen yàlla léegi yàlla yónni yonent yonent yi yàlla joxaat leen ay téere lu tax li yaquma naasa bil qist ngir nit ñi mën a taxaw ci njub jaamu yàlla yonent yi ñëw di waar nit ñi pour lan ñu xam ne dañoo war a ñëw pour jaamu yàlla waaye ba tey yonent yooyu bu ñu ñëwee yàlla dafa leen joxaat ay téere pour téere yi nit ñi xam fu ñuy teg seen tànk tawraat loolu moo taxoon mu ñëw injil loolu moo taxoon mu ñëw zabur loolu moo taxoon mu ñëw suxufi Muusa loolu moo taxoon mu ñëw feuille yi yàlla joxoon Muusa loolu moo taxoon mu ñëw pour nit ñi baax jàngeen ci bopp Baqara yàlla bi muy wax alxuraan maa ko wàcce dafa ne zalikal kitaabu téere boobu ngeen yor tiim ko nii ubbi feuille di ko jàng laa ray ba fii sikki sàkka nekku ci ne ci yàlla la bàyyi ko lu mu ci rek hudan njub la njub hudan téere bi njub la am téere bi njub la njub ku bëgg a jub rek la jël téere bi kenn du jàng al xam nga nit ñi tey même bu fekkoon ne di sax du dara alquran ñëw di jàngale lu baax lii nit ñi war koo jël boobu jëfe ko pour baax te alquran lépp lu mu digle ne nañ ko def soo ko defee yëkkatiku lépp lu mu tere soo ko defee am gàcc xoola sàngara bu dul dara sax nite rek nite ku am xel xam ne ne li baaxul imagine leen borom kër gu naan ba màndi puub tubéyam ndax loolu rafet na fi mu nekk nii bu ñu bëggoon bu ñu waxoon bu ñu bëggoon laaj benn laaj ñu ne fii kan moo bëgg papaam def kenn du yëkkati loxo yow ci sa bopp sax bu ñu la ne woon ndax yow bëgg nga loolu xoolal yàlla tere la alxuraan ñoo di la tere loo xam ne boo ko naanee day yàq sa comportement day yàq sa jikko kon waroo ko def xoolal njaaloo njaaloo xool nu mu ñaawee nga juddu kenn xamul kuy sa papa nga dem ba nekk kilifa war a nekk imaam ñuy tànn imaam nga raw fi ñu ne diw ñu ne waa jàkk ji ndeysaan wala loolu ko waral parce que am na lu xew donte ne sax loolu bokk ci waaye nga gis nit ñi niñ ko gëmee nga war a takk jabar benn xale bu jigéen mu ñu ne la ah juddu woon ci yoon de nga nga tiit hésité ñu dem ci miraas nga war a doon ñu ne ah judduwul ci yoon xool moo tax lislaam ne bàyyi leen ko continuer leen bul bàyyi li ma wax de continuer l yi lislaam tere lépp doo fekk lu lislaam tere ba nga liir ko daan ne mooy lu tax mu ñu koy tere day fekk yëpp dara baaxu ci lépp lu yàq ci ko doomu aadama la xoolal fen fen est-ce que bëgg nga ku la fenal yow ah est-ce que bëgg nga ku ne gis nañ waa ji fenn te du dëgg gis nañ ko muy def te du dëgg gis nañ ko muy wax te du dëgg wala fen ni mu bone l'islam tere nit ñi fen ne nañu dëgg nañuy wax dëgg même buñ lay rendi teg paaka bi sa put waxal dëgg laa yajrimannakum sana'aanu qawmin ala an laa taadilu idilu huwa aqrabu littaqwa yàlla mu ne bañ ay nit bu mu des nga bu mu tax nga bañ a maandu te xoolal ñun waxuma waxuma waxuma waxuma ak ñi nekk ci tarixa yi de fii nii génn naa nag fii nii génn naa génn naa maa ngi ci beneen moom ma ni waxatuma léegi ak ñu nekk ci tarixa yi de ñi nekk ci sunna laay waxal tey yàlla nee na bañ ay nit bañ nit bu mu tax nga maandu laa yajrimannakum sana'aanu qawmin ala an la taadilu bañ nit bu mu tax nga bañ a maandu loo ko bañ bañ maandul ci mbiram mais da ngay gis kenn koo xamante ne da ngeen wute benn masala rek mu bañ la mu takfir la génne la ci waxuma la mu génne la ci sunna bi ci lislaam la la génne xataa yéeféer yi yàlla nee na boo leen bañee sax na nga maandu ci seen mbir laa yajrimannakum sanaanu qawmin ala alla taadilu bañ ay nit bu mu tax nga bañ a maand maandul yàlla fu yemoon foofu sax mu ne idilu huwa aqrabu littaqwa maandu ci mbiru waa ji ah wax dëgg yàlla man ak moom de bi ñuy waxtaan démb wuute woon nañ lii la wax ma wax li yemal foofu waaye dafa xam dara foofu jàngul ko nga tas ko nag dem yóbbu ko effet bi yaa ngi tooñ te xoolal yàlla la mu teg ci baat bi huwa aqrabu littaqwa loolu moo gën a jege ragal yàlla la nga ca teg bokkatu ci génn nga ci cadre ragal yàlla moo tax dañuy dañuy def ni ay mbir rek te duñu bàyyi xel alxuraan ma ni bu ñu gëmee alxuraan ñun ñëpp dañuy jub saxaaba yi rawee wuñu loolu dañoo dund dund alxuraan loolu lañ ñu rawee de keroog ba yonent bi génnee àdduna saxaaba yi dajaloo ñëw kër yonent yàlla muhammad ñu ne yaay Aïcha lan moo doon jikko yonent mu ne kaana xuluquhul quraan yarda bi rida wa yasxatu bi saxati su alquran kontaan kay kontaanee yonent yàlla muhammad kontaan su alquran meree yonent bi mer yonent musul mer ci mbiru boppam saa yoo gisee yonent mer dañoo xotti xorma lislaam gis nga dafa am yoo xam ne du jikko jullit jikko yahud la yahud ñooy ñi sakk jëf li leen yàlla defal ci lu baax moo tax yàlla mu ne walamma bi nga xamante ne jaahum dikke na leen ñëw na ci ñoom rasulun ab ndaw ab yonent rasulun yonent fan la bàyyeekoo min indillah yonent boobu mu ngi bàyyeekoo ci yàlla yàlla tabaraka wa taala moo ko tànn yónni ko rasulun min indillah ndaw lu bàyyeekoo ci yàlla ndaw yonent yàlla yónni na cent vingt quatre mille yu ndaw cent vingt quatre mille yonent ci kaw suuf cent vingt quatre mille bal sax am na ñuy dajji loolu naan ëpp nañ ko lu tax wa minhum man qasasna ilayka wa minhum man lam naqsus alayk am na ñu ma la wax am na ñu ma la waxul waaye amul benn nation bu musa nekk ci kaw suuf lu dul ab yonent ñëw na fa wa in min umma illa xala fiha nazir amul benn nation benn xeet benn peuple bu mës a dund ci kaw suuf lu dul yàlla tabaraka wa taala yónnee na leen yónnee wa laqad baasna fi kulli ummatin rasul limaada an yabudu llah wajtanibu taaxut fi kulli umma arsala allahu ilayhim rasulan xeet wu nekk bi yàlla bindee addina bi ba fii nu toog xeet wu nekk yàlla yónnee na leen yónnee lu tax jaamu yàlla bañ a jaamu xërëm bu ñu topp yàlla bàyyi xërëm yi rasul yonent yàlla mu ne saa yu yonent dikkale leen musaddiqan yonent boobu di dëggal lima maahum ñoom la nekk ci ñoom yonent bi sax bu ñëwoon ne leen yéen yonent bi fi njëkkoon ñëw de moom waxul dëgg man mii maa wax dëgg xam nga tey loolu moo am waaye gis nga jikko yonent yi loolu moo am benn oustaz day ñëw léegi toog fi wax li beneen kenn ñëw dajji ko wax leneen waaye yonent ñoom xoolal mel ñu noonu aadama bi mu ñëwee ba muy dee lu mu wax daf cee dafa bàyyi foofu doomam mu tudd siis siis dem daal di bàyyi Idris ah muy dem daal di bàyyi Nuux muy dem kuy ñëw rek day wax ne am na kuy ñëw sama ginnaaw mission bi jeexul maanaam château bi château bi ñuy tabax pareegul de yonent yàlla Muhammad xam ngeen fan la fekk château bi tool est-ce que xam ngeen ko ah fekk defar nañ ko tabax nañ ko ba bu pare monté nañu lépp dafa am benn place boo xam ne suñ fa benn brique moo fa manqué buñ fa def defee brique bi raax ko peinture ko rek château bi ku ko gis bëgg ko yonent bi nee na man maay birig bu desoon boobu man la man la maay birig bi man mii la maa mujjee ñëw man la maay birig bi Isa bi muy dem Moussa bi muy dem lan la wax am na yonent buy ñëw ba Isa bi mujjee ñëw bi mu ñëwee di dem lan la wax am na yonent buy ñëw ñoom ñëpp ñu koy jokkalante ñoom ñëpp ñu koy jokkalante am na kuy ñëw am na kuy ñëw am na kuy ñëw ba ki mujjee ñëw ñëw tëj mbir mi waaye ñun waa Sénégal nanguwuñu ne Muhammad mooy xaatam de ndax am ngeen fii ci ginnaaw stade bi benn yonent ginnaaw stade bi ah am ngeen fi benn yonent bu ñuul Sénégal ñoo ñoo ñeme yàlla yàlla mu ne yonent bi mooy dernier yonent ñun ñu ne déedéet te xam nga lu garaaw Sénégal mooy ku woote rek am taalibe ku woote rek ñu topp la billahi wallahi taala ku woote ñu topp la am na sax ay jigéen yu fi woote yonent ñu topp leen kooku moom léegi yàlla dimbali nañ ci moom ndax dee na nekk journaliste di sol ay mini zippam di sol ay cappam di meesu di xeesal di teg greffage di xóotal ba retraité daal di woote ne yonent laa nit ñi topp ku woote Sénégal rek am ay taalibe kenn dong moo fi woote du am taalibe mooy ku ne yàlla nee na yonent nee na ñu ne yow li ngay indi daa métti li yow dafa diis sa diine bi dafa diis dafa war a na oyof na oyof na am ay sabar am xiin am ay ndënd ñuy jaayi di fecc soo leen nii ñu ne ñun fecc ñu dañuy yëngu diine suñu diine moo neex diine Sénégal ga neex da ngay dégg sax ñu ne na xumb te dagan na xumb te dagan ne iski iski ñëpp di fecc di fettasu ñi jigéen ñi def bopp neen xeesal yi ah sabar yi ñu jàkkaarloo góor yi yéen yi jàkkaarloo ku nekk di xoolante di piisante boobu diine mënu fa am ndeysaan te loolu mooy sunu diine nag te li ñuy wax lépp ci diine bi dafa wuteeg alxuraan jëlal benn par benn kër gu ci nekk am nga foo wuteeg alxuraan ak sunna waxuma ci ci ci ci sunna yi de ci farata farata yàlla day wax li waa kër gi ñëw na ñoom lii la ñun suñu kër gi lii lañ fiy def jëlal benn rek Muhammad moom mujjee ñëw rasulun min indillah ñii ñëw ne ñoom yonent lañ loolu ak alxuraan dafa dafa dafa benn la wala am na wuute ñaar ñi ne kan moo nekk ci dëgg yonent bu ne laa nabiya baadi yonent du ñëw sama ginnaaw keneen ñëw ci ginnaaw yonent bi ne man yonent laa kan lañ war a gëm ah léegi ñu gëm nii kon lu tax ñoom ñu gëm loolu yonent bi nee na laa nabiya baadi bu ngeen demee ci mandarga yowm al qiyam alaamatu saa di ngeen fekk yonent bi saa sallam nee na fanweeri fenkat dinañ feeñ ci jamono kullun yazamu annahu nabi mu ne laa nabiya baadi mu ne fanweer yooyu ku nekk di nga ne yonent laa yàlla ma yónni mu ne waaye maa ngi leen di yëgal yéen jullit ñi laa nabiya baadi yonent di ñëw sama ginnaaw laa nabiya baadi kullun yazamu annahu nabi mu ne laa nabiya baadi wala ndaw si feeñoon fii Gibraltar naan yonent laa te yéen jàngeen ci alquran wa ma arsalna min qablika illa rijalan allahu akbar alquran sax loolu la wax wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim illa rijalan ndaw si feeñ ne yonent laa am ay taalibe ñu koy génne ci télé bi di ko teg ñëpp di ko seetaan muy wax ci rajo yi gis nga am na yoo xam ne yenn yoo xam ne mi ngi xew Sénégal bu doon réewu arab yi ña koy woote rey nañ leen bu yàgg dañ leen di rey billahi dañ leen di dóor jaar seen bopp ñu dee mais ñun comme Moussa sanqal ëmb sa kersa ah comme ku mu neex nga wax lu la neex su ma waxee lu ma neex ñu ne maandul maandul ci yëfu jàmbur kee ñoo wax lu ko neex ñu ne maandul kële ñoo wax lu ko neex ñu ne maandul kii ñëw wax lu ko neex ñu ne maandul di ngeen ci Sénégal benn waaye mu ne man rañaan naa dem naa ba fi yonent yàlla Muhammad toogoon ma toog siis bu toog naa fi wala ñu ne ko ah waaye yow yow jàngoo di mu ne yonent bi jàngul woon day def léegi yonent bi mooy moroomam wala yooyu déggu leen ko yéen gis ngeen ko nii ak seen bët nii ngeen ko gisee dégg ko te yooyu yëpp yëfu kufru la jullit daal bu bëgg a dugg aljanna day jàpp ci alquran ak sunna jeex na alquran ak sunna xam ngeen place xam ngeen place place place nu mu tudd ci olof
man na man na peesekaay ñaata palaat la yam ñaar ñaar ah ñaari palaat la yam def nii alquran sunna alquran sunna loolu mooy peesakaay boo demee ci borom bitig bi ngeen ko jaami kilo ceeb mu daal di tibb ci ñaari loxoom ba mu fees daal lay def ci lekket gi la koy wax peese nañ ko peese ku la waxati dara ku la waxati dara ne ko nañ ko peese ah màkka de jarul ta dem nga ne ko xaar ñu peese ko nga génn sa place teg daal di koy teg ci alquran ak sunna rek nga dégg mu ne walillahi ala nnaasi xijjul bayt manista nga ne ko teggi matul matul teggi nga ñëwaat kenn mu ne jarta woor nga teg ci balance bi mu ne yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qabl nga ne ko teggil matul matul matul nañ ko peese pourtant si salwaalu adduna nii loo dem di jëndi bu ñuy natt bu ñu nattee matul nga ni mottali ko
buy peese matul nga ni mottali ko yàlla indil la balance jàngal suratu rahman arrahman allah xalaqa al insan allamahul bayaan assams wal qamar lu ci rek wan najmu wassajaru wassamaa rafaaha wa wadaa al misan wa wadaa al misan allah balance baa ngi ni alquran ak sunna luñ la jox nañ ko peese luñ fi teg nekkul ci alquran ak sunna teggil ne ko teggil teggil matul matul tey jii boo demoon jëndi liñ la jox matul ngay peese jaay ma kilo banaana mu ne nii matul mu bugg laa jox nga naan ko déedéet doo ko nangoo jël su waa ji insisté ne mat na da ngay dem ne ko xoolal ma jëndi feneen lu tax ci alquran ak sunna ku la wax dara doo ko peese yow gars yi deneen peese te balance bi kenn du ko jëndi alquran la ak sunna soo génnatee ci mbedd mi lu waay wax ku mu mën a doon waxuma nga weddi de da nga naan ko nañ ko peese mu ne luñ ci peese nga ne ko nañ ko teg sa wax ji dañ ko teg ci alquran ak sunna ñu xool bu la bàyyee looy julli dugal ci alquran nga ubbi nga xool ndax ay santaane julli mu nga fa wala nekk fa soo ubbee alquran gisoo aaya yàlla bu mu leen a julli nga ne ko wax nga dëgg de pourtant yow wax nga dëgg de ndeke julli gars yi dañuy sonal seen bopp rek waaye boo ubbee nga gis ñu ne la aqimu salaa ah xaafizu ala salawaat ah nga ne ko ah pourtant yàlla dana ñu julli de yàlla dana ñu julli de moom nag mu ne la bul julli yàlla ne la julli loo war a def moom mu ne la bul woor yàlla ne la wooral yow loo war a def moom mu ne la bul muuru yàlla ne la muurul loo war a def jeex na nga noppalu mais Sénégal da ngay dégg ñu ne non mbir yi zaahir la ak baatin ñii zaahir lañ xam xamuñu baatin ñoom seg ci kaw la ñuy gis kon léegi ñoo yéen yéen gën a xam Muhammad mbir yi sallallahu alayhi wa sallam dafa am Sénégal ñu room Muhammad Sénégal ku fi sa furno tàkk rek ci Muhammad nga niitoo Muhammad nga dem tibb xal ku fi sa furno tàkk dangaa demoon ci furno Muhammad yóbbu sa kudd cunuwaar tibb ci benn xal ñëw def ci sa furno taal dégg na li ma wax de mani Sénégal laa wax ku fi sa furno tàkk ku fi sa na lampe néegu leer yaa ngi ko branché ci porte lampe Muhammad kon waroo bàyyi xel waroo waroo kontaan ci néeg bi bàyyil xel lampe bi porte lampe bi foofu nga ko branché mais maar asaf nit ñi dañoo dem ci lampe ba yuuxu bàyyi ba porte lampe bi te ñëpp fa lañ branché wu moom la yàlla yónni ci ñun rasulun min indillah musaddiqan lima maahum waaye xam nga lan mooy wax mu ne nabaza sànneeti na sànq jàngoon ngeen ko an nabz mooy at tarx awil ilqa mooy sànni ndeysaan te waa ji bi mu koy sànni wala multafitin ilay da ko sànni gestuwul sax dafa sànni mbir mi gestuwul moom la yàlla wax nii nabaza sànni na fariqun benn kuréel min allazina ci jaaye gaa yi nga xam ne uutul kitaaba dañ leen joxoon téere muy yahudi ak nasaraan yi uutul kitaab soo jàngee uutul kitaab rek ci alxuraan mooy yahud ak nasaraan gis nga ñun fii léegi ñàkk a dégg suñu diine moo tax yenn saa yi nga dégg kenn mu ne yàlla am na ñetti diine am na diine nasaraan am na diine yahud am na diine lislaam da ngay dégg ñu ne yàlla ñetti diine la am pourtant bu ñu jàngee alxuraan lan la ñu yàlla wax inna diine inda allah fan lañ jàng ci alxuraan yàlla mu ne am naa diine bu tudd yahud ci alxuraan fan lañ ubbi ci alxuraan ci 114 saar yi fu yàlla ne am naa diine bu tudd nasara nasara bal yàlla sax daf ibrahima mi ñu doon tuumaal naan yahud la wala nasaraan sax yàlla daf ko dàq ma kaana ibrahima yahudiyan wala nasaraniyan ibrahima day musul nekk yahud musul nekk nasaraan walakin kaana musliman hanifan ku jub xocc ci lislaam jéng ci bépp diine moom ibrahima alayhi salaam ahlul kitaab yàlla mu ne ay yéeféer lañ ahlul kitaab yàlla joxoon ay téere yi yàlla mu ne ay yéeféer lañ inna allazina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikin fi naari jahannam yàlla mu ne yéeféer yi inna lazina kafaru ñi nga xam ne ay yéeféer lañu bokk min ahlil kitaab bokk ci ñooñu téere kon ci ñooñu téere dafa am ñu ci weddi yàlla wal mushrikiina ak bokkaalekat yi ñoom ñëpp boo leen boolee groupe googu safara la yàlla nee na jahannama laa leen jëm ñenn ci ahlul kitab ñi nga xam ne seen yonent yi dañoo dem ñu changé téere yi nekk ci leneen yàlla nee na safara lañ jëm yenn saa yi gis ay sëriñ yu taxaw di défendre nasaraay nasaraan yi leen défendre am na ci sax benn sëriñ boo xam nee na man maa ñaanal xaw ma kan pour mu nekk cardinal maa koy ñaanal mu nekk cardinal ab jullit ñu ñaanal ab nasaraan pour mu nekk cardinal wala wala déggu leen koy ah waaw nee naa leen nee naa leen danañ danañ tafsir koor gi ba mu jeex wallahi lazim du ma leen wax fii lu ngeen gisul déggu leen ko ab julit di ñaanal ab nasaraan naan ko yàlla nga nekk cardinal cardinal bi kan lay xeex ba pare nga ne yow julit nga cardinal bi lan mooy mission bu moom muy sol lan la lan lay liggéeyal moom lan mission lan la mooy bu kenn wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah ci kaw suuf ku mel noonu yow nga koy ñaanal xamuñ sax li ñuy def koo xam ne day xeex kaddu yàlla di xeex mission Seydina Muhammad nga koy ñaanal pour ñu mission boobu mu réussir ba pare yow nga ne ko man jullit laa man sax ci Muhammad laa bokk waaye nag dama lay ñaanal yow sa mission bi yal na nga réussir déggu leen wax bi de ah am na yoo xam ne foog ñu góorgóorlu dafa am yoo xam ne xel sax daf ko nanguwul kenn waxu la nasaraan yi nga nekk ak ñoom ci dëkk bi xeex ak ñoom non non waaye nag yàlla dafa ne lakum diinukum seen yëf sa yoon nekk ci maandul seen yëf nga bàyyee leen seen yëf yow nga ñëw ci sa yëf yow dafa am loo gëm yonent yàlla Muhammad dafa gis Omar mu yor bible di ko lire yonent bi di keroog dafa mer bu bëri moom julli jotul mu ne Bilaal wooteel Bilaal woote yonent bi ci minbar bi la tabax la taxaw daan ne maa ngi giñ ci màggaay yàlla Moussa tey bu dekkiwaatoon ci kaw suuf adduna bi du yaatu ci moom lu dul sama ginnaaw lay nekk ni ngeen toogee sama ginnaaw lay nekk sama ginnaaw Isa day wàccaat du jàng ngeen ne Isa day wàccaat axiru zaman taalibe yonent bi lay nekk day nekk taalibe taalibe yonent bi kan lay àndal al mahdi mahdi lan la bu sax saxaaba imaamul mahdi lay àndal wala imaam al mahdi lay àndal taalibe yonent bi waaw te ab Isa bi yonent la wala du yonent mu ànd ak imaamul mahdi ñu dem rey dajjaal kon est ce que seen mahdi yii fii existe na dafa am yoo xam ne xel nangu ko Sénégal yi comme ñu jàngul diine l'islam yaa yonent bi ne Isa day wàcc ana Isa fi mu nekk nii ñun bu fekkee li ñu gëm li nekk Sénégal mooy Isa wàcc na mahdi passé na kon ana dajjaal ana dajjaal dee na waaye gars yi yeewu leen waaye nelaw yi gis na waaye gars yi yeewu leen waaye xandoor yi metti na yéen a ngi xarañ rek yeewu leen am na benn woykat buy woy naan xaw ma yeewul biddeen di nga xaw ma dootuma guddee xaw ma nu mu koy waxee yeewu leen guddee ngeen ana isa yonent bi lan la wax ci masi ci ci ci mahdi al mahdi yu min nii mu ne mahdi yi ci man lay bàyyee ko fan lay juddoo muy dinatu mu naw turam ak turu muhammad muhammadul mahdi lay tudd turu yaayam ak turu papaam papaam abdallah yaayam amina yéen seen mahdi masmu abiyi seen mahdi bi ngeen am sénégal turu papaam lan la turu yaayam lan la te yeneen bi nee na ci madinatul munawwar ci jàkkaam bi la ñuy jaayante ak moom te day lànk gars yi dañ koy yàgg xool di gis sifaat yi ba bis ñëw ñu ne ko yow dañuy jaayanteeg yow gars yi dañuy jaayanteeg moom mu doog a nekk alimaamul mahdi al muntazar Sénégal nag mahdi ñëw na ba passé Isa ñëw na ba dem waaye dajjal laa gisaguñ dëgg ki ñuy xaar al muntazar mooy mu dañ koy xaar ñëwagul al imam al mahdi al muntazar dañ koy xaar ñëwagul ndeysaan dana ñaar duwal yàlla mu ne tabaraka wa taala fariqun benn kuréel min allazina ci ñi nga xam ne utul kitaaba dañ leen joxoon téere kitaaballahi téere yàlla kitaaballah téere yàlla at tawraat li dalalatiha ala nubuwati nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam tawraat yàlla moo ko jox Muusa mu ñëw Muusa jàngale ko leeral ci melokaanu yonenti yàlla muhammad ci biir tawraat ne leen yonent bi mooy ñëw su ñëwee ku diggu dóomu lay doon borom bët yu am tusngal weex tàll yaram bi dafa weex taxawaay bi diggu dóomu kawar gi ñuul sikkim bi fatt suy dox du dox di gestu du tafu ci miir ci digg mband mi lay jaar boo ko woowee du gestu mais day tourné yaram bi yëpp mooy tourné jàkkaarloog yow suy wax du gis ku dal su toogee noppi soo ko xoolee nga gis ku wegu soo xoolee kanam gi nga xam ne kii yorul kanamu fenkat yonte yàlla Muhammad jógee na Màkka ñëw Médine benn arab dégg na yonent bi jógee na Màkka ñëw na Médine mu ñëw di xool si kan la mu fekk mbooloo mi yëpp toog muy xool ana yonent yàlla Muhammad ci biir mbooloo mi di xool kanam par kanam di dem nee na fa lamma stabantu lwajha araftu anna alwajh laysa bi wajhi kasa bi ma nee nii ba dajal kanam gi bëtam ak ñaari bëtam ak sama ñaari bët na jàkk ma gis leer bi ci jëy ci jëbi di tàkk ma gis bëñ yi di génne ay étincelle lumière gis ngeen jigéen bu takkee or guddi ba nga dóor ci lumière or bi nu muy def day melax ba ñu yonente bi noonu la mel weex tàll di melax sallallahu alayhi wa sallam nee na ba ma nee jàkk kanam gi araftu anna al wajh laysa bi wajhi kasa dafa am benn téere bu tudd an nabiyu ko annaka taraahu daf lay daf lay sifaal daf lay jox mi yonente bi daf lay jox melokaanu yonente bi ba mu mel ne yaa ngi jàkkaarloom an nabiyu ko annaka taraahu la téere bi tudd نسيت لكن كأن الكتاب موجود عندي فاحتاج به لعل إذا رجعت إن شاء الله إذا رأيتها لأن الكتب كثير لكن سأبحث ndeysaan boo leeree téere bi da ngay kontaan dañ lay misaal yonent bi ba mu mel ne yaa ngi koy gis ci nu mu rafetee ci nu mu wegoo li ëpp ci ay yëreem yëreem yu weex la foo ko fekkoon mu ngi socc ndax bëggul lu lu salte foo ko fekkoon mu ngi peñewu foo ko fekkoon mu ngi ak parfum yonent bi daawul yónnee lu mu bëgg a def da koy defal boppam jàng ngeen ñu ne da daan fekk jaam bi di dëbb mu jël kuur gi di dëbb ba loxo yi fut jàng ngeen ñu ne da doon raxasal boppam ay dàllam xoolal noonu mu mel yëpp te daan war mbaam te daan dem marché di jëndal boppam ay bagage xoolal noonu mu mel yëpp xam ngeen lan moo doon dundam ñaar yu ñuul ñaar yu ñuul la daan dundee ñaar yu ñuul mooy lan tàndarma ak ndox la daan dundee léeg-léeg mu toog weer cin du tàkk këram sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg mu toog weer cin du tàkk këram léeg-léeg mu ne bëgg a tëdd du mun a nelaw mu xiif benn bis dafa tëdd bëgg nelaw munu nelaw mu xiif mu daal di jóg di wër mbedd Medine mu dajeeg Aboubacar mu ne Aboubacar lan la Aboubacar mu ne damaa xiif te mooy yonent bi de ñu dox benn mbedd ñaari kon ñu dajeeg Umar mu ne leen nañ dem kër Abul Ayyub al Ansaari bi ñu fëggee kër gi xaaji guddi waa ji ubbi gis yonent bi mu daw yee soxnaam ñu yee doom yi mu jël paaka bi jubal ci gétt gi yonent bi ne ko moytul buy nàmpal wala bu ëmb moytul buy nàmpal wala bu ëmb bu doon yow sa yoon nekk ci parce que yow da ngaa ñu ngi gàddu paaka bi sa yoon ay xoola yonent dafa bëri yërmande ne ko moytul bu ëmb wala bu buy nàmpal mu dem jàpp benn tëng mbote daal di koy renj ñu lakk yàpp yi ba mu ñor ñu teg yonent bi dagg ci yàpp bi daal di woo kenn ne ko dawal nga jox Fatima weer a ngi ni lekkul yàpp ñun fii ki ki mujjee lekk yàpp kañ la démb nga ko ndogo wala nga xëddi ko tey sallallahu alayhi wa sallam moom da daan toog ndeysaan di xiif toog weer xoolal mu ne Fatima toog na weer lekkul yàpp ban jigéen ngay takk fi mu toog weer lekkul yàpp ah te mu ngi toog kër ci këram toog ñoom Aïcha dañu doon toog weer ci du tàkk kër yonent bi dañu ngi toog tey fii fii jigéen lu mu dee dee ba bu guddee dina reere fonde te fonde cin la cin dañuy taal cin bi ah wala ah fonde dafa la ñu koy togg teg cin bi ci taal bi wala da ngeen di togg fonde sans teg cin bi ci taal bi xanaa fonde télécommande la fonde rek mu wàcc yow ne sénégalais yi dañoo naïf moo tax président de la république di woote élection naan dinaa leen defalal ay robinet maafe ñépp gëm ko yéen ñii génn waa gi woote yëpp loolu moo taxoon ngeen woote robinet maafe ak ay robinet caakiri mooy da nga naan maafe rek mu ñëw maa xàllaa sénégalais yi dañoo bëgg lekk moom moo tax wala ñépp gëm ko nag ndeysaan loolu yonent yi ñoo ko mën loolu programme yonent yi la woon yonent yi ñoo doon wàcce mën na ak salwaa kaw asamaan maafe maafe ñëw kooku programme yonent la du programme mbindeef ceeb ceeb ñëw kooku programme yonent la ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam yonent bi bi ñu lekkee lekk lekk lekk lekk ci yàpp boobu ba ñu yëg ne ñoom léegi suur na ñoom ñett ak waa kër gi yonent bi jooy saxaaba yi waaru borom kër gi waaru dangaa xiif ñu tegal la yàpp tegal la jus d'orange tegal la fruit tegal la ndox mu sedd tegal la mouchoir tegal la saabu nga lekk ba suur looy def loo war a def fomp ñu jox la sa ñaari kaas verre jus nga tulli ñu indi la fruit bi nga dóor daal ne tey sonnoon naa xoola yonent moom dafa jooy day sax saxaaba yi ne ko lan la lan la wax la tusalunna anin naari summa la tusalunna yawma isin lii ngeen lekk tey yàlla dina leen ko laaj yowma xiyam ci lan ngeen koy reesale génn xiif yàlla may la nga lekk ba suur nga dem reesale ko ci mooy yàlla yàlla dina la laaj xéewal boobu wala moom mi ngi lekk mais mi ngi xalaat après su lekkee ba pare lekk bi mu lekk essence bi mu jël doole bi mu chargé wu ci lan la ko war a reesal yaa ngi xalaat ndogu soo ndogoo ba pare après am na ñoo xam ne fi mu nekk nii bu ndogoo ba pare fu ñu jëm soirée ku ñuy seeti ay da wala koot wala Moodu wala Samba xalaat li ñu jël fan lañ koy reese la yonent bi moom bi mu jëlee ba pare dafa xalaat fan lay reese ndeysaan mu jooy mu ne lii xéewal la yàlla dina leen ko laaj ëllëg yawmal qiyaama summa la tusalunna yawma izin anin na'iim yàlla mu ne tabaraka wa taala ñii sànni nañ kitaab allahi téere yàlla waraa zuhurihim seen ginnaaw te ba ñuy sànni téere bi seen ginnaaw ka annahum mi ngi mel ne ñoom laa yaalamuuna xamuñu jànguñu ndeysaan nabazuhu waraa zuhurihim ka annahum la yaalamun sànni nañ téere ba seen ginnaaw téere yàlla tabaraka wa taala te yàlla defoon na ci téere bi nubuwatu yonent yàlla muhammad wa sihati diinihi al islam ne yonent bi dana nekk mooy nekk yonent bu mujj melokaanam yaa ngi nii xàmmekaayam yaa ngi nii diineem mooy diine bu mujjee ñëw moo gën a wér programme am mooy programme am bi gën a wér ci programme yi fi jaar gars yi daal di jël téere bi wara a zuhurihim daal di koy sànni seen ginnaaw aaradu anhu ñu dummóoyu walam yaltafitu ilayhi gestu wu ñu téere ba limaza ndax ñoom xam nañ ne maarifuna alay ñu dummóoyu ci téere bi jënde ko minal kufri ci kéeféer mu jaral nit nga laaj ko ndax yéen jàng ngeen dara ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne déedéet jànguñu ci ndax wax nañ leen ay melokaanam mu ne déedéet fi mu nekk nii am na ñoo xam ne buñ la bëggee tere pour nga dund lu leer dañ naan la man gis naa ay wirdu yoo xam ne buñ koy joxe ci Sénégal dañuy tere borom jàng alxuraan du ma wax ban tarixa la nag toog naa ci benn saal man ak benn waay bu àndoon ñu koy jox wird xam nga luñ ko wax bul jàngati benn téere bul liireeti lépp waa ji ne même alxuraan mu ne ko même alxuraan bul ko jàngati ba semaine bi jeex nga ñëw ak caay-caay saa yi ko naree def rek dañ lay tere alxuraan parce que jullit munul munul di lire alxuraan comprendre li ci nekk ba pare di réer munul nekk munul nekk moo tax chaque jour looy dégg alxuraan jar sa jàng jàng yee sax ci Sénégal am na ñoo xam ne ne alxuraan bu leen fekk fu ñu koy firi ñu ne boo fekkee fu ñu koy firi na nga ut fas nga solal fas bi dàll weñ nga dawal ko ba dàll yi xoos tàkk ba jeex bu mu taxaw ndax pour nga bañ a déglu alxuraan léegi nag ñun bu fekkente ne dañu bëgg a dund te du ñu jàng alxuraan du ñu ko firi du ñu comprendre alxuraan soo leen laajee lu tax yéen ngeen ne alxuraan bu ko kenn firi ñu ne alxuraan kenn mënu ko firi moo ko yàlla la kenn mënu ko firi yonent yàlla Muhammad dafa doon firi saxaaba yi xuraan su fekkoon ne kenn du firi alxuraan kon kenn du mën a dund diine bi hadis dafa ñëw di firi alxuraan yàlla moo ñu ko wax ci altéeréem bi hadis nan la ñëwee di firi alxuraan yàlla mu ne moo yónni ci yonent yi ndaw yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba hikma wa sunna hikma hiya sunna alhikma sunna moo ñëw di firi alquran lan moo tax sunna moo firi alquran bi yàlla ne julli leen aqimu salaa julli leen est ce que fekk ngeen ci biir alquran suba ñaari ràkka la tisbaar ñeenti ràkka la takkusaan ñeenti ràkka la timis ñetti rakk gée ñeenti rakk est ce que loolu mu ngi ci alquran ban saar la nekk yàlla ne julli leen rek hadis moo ñëw di wax léegi julli gi nuñ koy defee bi yàlla ne woor leen hadis moo ñëw di leeral nan la ñuy wooree fan la tàmbali fan la yem bi yàlla ne aji leen yonti yàlla Muhammad moo indi hadis yi hadis yi di wane nan la ñuy ajee maanaam ba bépp mboolem diine bi diine bi lépp luñ ciy def rek hadis moo ñëw di ko jàngale loolu moo tax jullit bi ci jaamu yàlla yi ci lépp lu jullit war a dund nekkul benn hadis moo la ciy jàppale yéen a ngi may dégg sifatu salaatu nabi sallallahu alayhi wa sallam pour nga am ko ñaata hadis ngay boole pour nga am sifatu salaatu nabi kenn xamul nu mu toll sifatu wudu nabi melokaanu njàpp yonent bi pour nga am ko ñaata hadis ngay boole léegi nag ci ñun da ngay gis ku jël ñaari hadis rek de comme ni waa ji defoon dafa am benn waay bu ñu mus a wax ne man bu may julli du ma xam ñu ne ko xabdu sunna la mu ne ci yan téere la nekk ñu def ak moom débat keroog ba ñuy dem maa ngi ñi ma àndaloon ñenn ñi dañoo yenu téere yi ñenn ñi bokk téere yi ñu ñëw teg moom bu muy ñëw xam nga lu muy indi benn téere bu tuuti bu ndaw matu sax deux pages xaw ma trois mu daal di koy gàddi ñëw ñu commencé génne sahih Bukhari won ko hadis xam génne muslim génne génne génne mu ne man xoolal hadis bi doon moo ma doy moom mu daal di ubbi téere mooy hadis muusi usala ki yàq julli dugal ci jàkk ji di yàq julli bi ko yeneen di jàngal julli ne ko da ngay kàbbar taxaw ba ku la gis xam ne taxaw na soo rukoowee nga sëgg ba ku la gis xam ne rukoowee su xam nga foofu hadis ba waxul na nga xam mu liir hadis ba mu jeex mu ne ana xam ñu ne ko non xam du nekk ci hadis mu ne jeex mu ne ma sonal xam duuma gis ngeen lu mu def mais est-ce que loolu mu def noonu loolu mooy xam-xam loolu mooy diine dafa bañ moom dafa xool li ko neex mu tànn mu daal di lànk jël li yonent bi jàngalee dundinu mbir mi beneen am na benn sëriñ boo xam ne xam nga lu du noon wax taalibe yi pour ñu bañ a xam du xam nga lu mu wax def leen ne su ngeen gisee xabdu ñu bind ko ci téere yi lu yonent xabdu dafa tuuti moo tax ñu bind ko li mu def nii kenn mënu koo bind moo tax bind ñu ko ci téere yi gis nga li mu def mu ne li yonent bi julli wàcce loxo dafa bari bari ba kenn mënu ko bind ci téere yi moo tax kenn bind ko waaye li mu def nii nag dafa dafa néew moo tax ñu bind ko loolu yonent bi nag innama axaafu aleykum ñu ne ah mu ne aimmatil mudillin li ma gën a ragal ci yéen jullit yi ñu ne ah mu ne njiit yuy réeralaate ngeen am ay njiit yu leen di réeral te loolu lañu am ñun ay njiit yuy réeralaate isa waqa aleykum sayf lam yurfa ila yawm alqiyama mu ne bis bu jaasi ji tàmbalee seen kaw dootul teggeeku dul yawm alqiyam jot ndax bis bu ngeen tàmbalee xeex di tuur deret jeex na saye deret day tuuru ba yawm alqiyamati loolu ngeen gis tey adduna bi deret day tuuru rek doo xëy suba ba ngoon déggoo ay nit yu ñu rey wala nit ku ñu rey jamais doo xëy suba ngoon déggoo fu ay bomb di tàkk wala fu ay attentat am deret day tuuru ba yowmal xiyaam jot li ma ragal ci yéen ñaar mooy deret jiy tuuru ak njiit yuy réeralaati kañ la ko yonente bi waxoon boobu yëpp ñëwul waaye ñu teg ci bët innama axaafu aleykum aimmatil mudillin yonente bi nee na sinfaan min ummati ida salahu salaha annas wa ida fasadu fasada annas al umara wal fuqaha ñaari nit ci sama xeet suñu jubee ñëpp jub bu ñu jàddee ñëpp jàdd ñu ne yonent bi ñoo ñan la mu ne al umara njiit yi wal fuqaha ak boroom xam-xam yi boroom xam-xam yi bu ñu jàddee rek musiba am iza zalla al aalimu zalla al aalamu su borom xam-xam tarxiisee monde lay yóbbaale monde xoola xalifa général bi xëy këram daal di ndékki gars yi ne ko sëñ bi wooroon mu ne moom man ku ànd ak man man day wóolu daf may wóolu man ñëpp dem naan ah sëñ bi doo julli benn waaye dafa jiite timis ah benn sëriñ ñëw ci benn ngénte timis fekk ko fa mu julli juumde def ñaari ràkka sëlmal rëy gars yi ne subhanallah sëriñ ñaari ràkk mu ne moom man ko ànd ak man ñaar nga koy def rek gars yi is ki gars yi dem julli timis ñaari ràkk li ma leen wax xam ngeen fan laa amee caare azir xanaa ba bëgg bu ngeen yaakaar du Sénégal de caare azir sëriñ bi dem julli julli ñaari ràkka timis ah sa koña caaroy azir allahu akbar julli ñaar rakk wala lool rek loolu moo tax ñu ne boroom xam-xam bu tarxiisee day yóbbaale monde monde lay yóbbaale ci ay doomu aadama dañ koy topp ci bàkkaar bi bëri na tey ku fi def dara suñu la nee lii nag nga ne man suñu suñu sama sama sëriñ di lay def ah sama sëriñ moo koy def man dama koy def kenn du roy kuy mooy yàlla innama taatu fi lmaaruf la taata li maxluqin fi maasiyati lxaaliq kenn du tomb mbindeef kenn du topp mbindeef ci mooy yàlla keroog ba aboubacar falo lan la wax ati uni ma ataatu llah wa rasulahu feeg maa ngi topp yàlla ak yonent topp leen ma bis bu ma mooyee yàlla fala taata li aleykum waratu leen maa topp saa yi ñu topp nit na fekk muy topp yàlla di topp yonent waaye ku toppatul yàlla toppatoo yonent ñi la doon topp dañoo war a taxaw soo leen ne lu tax ngeen taxaw ñu ne ah dañoo gis lu ñu xamul kat ndax yonent la doon topp ngay topp yàlla léegi nag gis nañ ne toppatoo yàlla waaye da ngay dégg rek ñu ne moo ko sañ moo ko ñëwee moom xam na lu ngeen xamul moom moo xam baatin bi mbir yi zaahir la ak baatin yéen zaahir ngeen xam ah bàyyi leen li ngeen yéen gis nga yéen di ngeen di alku yéen lii rek moo tax ngeen di gaaw a dee gaaw a dee yéex a dee dee dee kese la li nga war a dee da ngay dee rek boo waree dee da ngay dee kenn taxul nga dee kenn mënul la dara am na ñoo xam ne seen kaw lal la ñuy tëdd dee am ñoo xam dañuy yéeg avion avion bi daanu te dara du leen dal am ñuy dugg ci bato yi bato la joolaa kay ñëpp deewuñ wala wala ñëpp a dee ah waaw am na ñoo xam ne dañuy dee foo xam ne kenn du fa dee da ngay gis ku reer bu suur tëdd na la wallahi alazim barkaa ci démb suñu benn mbokk yaakaar naa avant ñuy woor la ñaari fan xaw ma benn fan dafa woor ba ngoon ndogu dem julli timis ci jàkk ci toog fa ba gee jot mu julli ñëw reer tëdd benn xaritam jëm julli ji fajar jàkk gis ko toog te dana kooku fa la daan nekk ak moom ci jàkk ji buñ jullee ba pare fajar kooku toog gis ko daal di jaaxle ah diw xanaa dafa feebar mu woote ci portable am ci fajar bi portable bi du sonné kenn jëlu mu ne xëy na kon nekk fi fanaanul seen kër mu bàyyi ba 10 heures mu ñëw seen kër ne yéen ana diw ñu ne ko ah diw kay est ce que fii la fanaan parce que ñun gisuñu ko ci fajar bi mu ne mais maa ngi koy portable baa ngi sonné kenn jëlu ñu dem ci néeg bi woote ñu dégg portable bi du sonné ci biir ñu ne kii mu ngi ci biir ñu daal ci néeg bi fekk ko mu dee wallahi noonu lañ ko jëlee yóbbu ko fuuta suuli lan moo ko jot tus tus jotu ko dee du feebar de du feebar du feebar mooy tax nit dee de sénégalais bokk na ci li tax ñu alku soo déggee nit dee ne rek looy wax ah da feebaroon ah fan ngeen jàng yàlla mu ne ku feebar mooy dee fan lañ ko jàngee ban téere dama leen koy laaj wax leen ma ban hadis la ku feebar mooy dee xanaa jàngule ñu ne fa kam min saxiixin maata bi gayri illatin fa kam min saqimin aasa hiinan min addahri da ngay dem hôpital fekk fa ku feebar nga seeti ko ñëw yow mi ko seeti woon dee moom mu ko moom feebar continué dund benn waaye dafa am ku feebar mu ñëw di jënd garab di jëli médecin bi bi mu bi mu bi mu xoolee waa ji ba pare daan ne waa ji day dee seen malade bi day dee mais du tere ma bindal ko benn garab bu ngeen demee ngeen jëndal ko garab gi mu bind garab gi ñu ñëw di jënd garab gi dem kii jaay ci pharmacie bi ñu jox ko feuille bi mu xool daan ne am na fi kay anamu mu ne mi ngi nii jël benn échelle teg yéeg yootu di àjji garab gi yàgg fa trop ne nii taxaw ne nii ñi ñi jënd ñu ngi jënd ñëpp a ngi taxaw moom mu taxaw rek benn waa ji laal sel bi rek waa ji jóge ci kaw jullee bi suuf nekk dee na bu yàgg kon loolu programme yàlla la du programme doomu aadama nit am nga droit topp mbindeef waaye na fekk muy digle lu baax na fekk muy wane lu baax jeex na saa ya toppee nit mu daan julli du julli ba caag mu lànk nga ni ko hee mu ne la noonu ñun léegi wàññi wàññil nañ ñu ko wàccal nañ ñu ko bu yóbba nga buub say dëb uti keneen xam ne kooku moom jaar na yoonu safara kenn du jaamu yàlla ba yàlla waa teggil la jaamu gi Sénégal nag am na ñu fi teggil jaamu yàlla loolu musiba la gis ngeen ñii lan lañ def kitaaballahi téere yàlla lañu sànni wara a zuhurihim seen ginnaaw ka annahum mu ngi mel ne ñoom laa yaalamuuna xamuñu loolu lu tax yàlla adressé baat bi ne leen ka annahum laa yaalamuun mooy dafa am mbir yoo xam ne ku xamul dong moo koy def ku xam du ko def mu ku xamul mooy fekk yàlla nee na mu lànk bañ ko def parce que xamul yow yow xale bi yow bàyyi ci xale bi ñeme naa fekk gaynde toog mu xëcc ci génn gi est ce que bàyyam ñeme na ko lu tax parce que xam nga lu si gën
mais xale bi ñeme naa fekk gaynde toog laa mu jël jur bant bale naan day jurgóot gaynde gi naan ko ko nii sama benn doom dafa yor benn portable dañ cee def benn waay xaw ma tudd góor fit xaw ma waa ji mbaam moo ko doon dàq mu daw daal di dugg ci benn kaaf ndeke gaynde moo nekk ci kaaf bi ba mu duggee ba pare bunt bi tëju lan la doon daw mbaam mu daw dugg ci kaaf gi kaaf gi tëju gaynde fa nekk mu ne nii mu gis gaynde mu ne tey laay dee rek wuy tey laay dee tubaab la de mais sénégalais yi ñoo dangereux tubaab la de waa ji tubaab la de mais sénégalais yi dañ ko dañ ko transformé def ko olof mais boo koy xool da ngay réew sa biir bi bi bi ma ko njëkkee gis dama yéemu mu naan wuy tey laay dee benn kuti jóge fële di mbow di ko mbow mu naan ko bu yee gaynde ci dee waay dimbali leen ma ci kuti bi mu yee gaynde benn jigéen ñëw doon ko sebe si di ubbi bunt bi gis gaynde gi xëm ah gaynde gi waa xaj xaj bi di mbaw de mu ne xaaral ma sakk sama nopp balaa may dégg xaj bi lu muy mbaw ba gaynde gi day yeewu wala gaynde gi ni mbaw mu ne moom day sakk noppam xaj buy mbaw bu yow boo sakki sa nopp gaynde gi nga sakk lu tax lan la waroon sakk no mu ne xaaral ma sakk samay nopp balaa ma koy dégg xaj gaynde gi di yeewu xam nga kooku jaaxle na allahu akbar ka annahum laa yaalamuun mi ngi mel ne ñii xamuñu xam nga lu ci yéeme bi ndaw si ximmili ko ba ubbil ko ba ubbil ko bunt bi mu taxaw ci digg bu naan góor fit maa tey laa wax ngay nekk yeewul ndeysaan gaynde gi yeewu xam nga waa ji nu mu def si pol lamp bi la lew yéeg bi mu jàddee kon jàddaay kon ndaw si di ko wër ndaw si xool-xool gis ko fay ndeke mu ngi ci kaw pol lamp yi ci kaw fii lay yéeg taxaw xam nga ne kooku amul fit ah doomu aadama saa yu ko gisee muy dugg ci ay lu xóore dafa xamul ka annahum laa yaalamuun dafa am loo xam ne ku xamul moo koy def mais ku xam du ko def mukk ci àdduna mukk xale bi mooy nekk ci kër gi di fawee gaz bi mais papaam ak yaayam duñ ko fawee xale bi mooy ñëw gis gaynde di dem mu jàpp ci buum gi mu jàpp ci genn gi di xëcc wala mu jàpp ci kawar gi wala mu jàpp ci nopp yi waaye papaam ko def mukk ndeysaan am na paa buy toog fii di ñëw tafsir daf ma doon nettali mu ne seen benn mbokk dafa àndoon ak soxnaam ci digg àll bi ñu dem ndekee nelaw nañ bi ñu nelawee ñu ngi woon doom buy raam doom ji daal di raam dem fekki gaynde yi ñu yeewu xool-xool gis ñu xale bi ñuy wër ñuy wër ba ci yàgg rek papa ji gis xale bi ci gaynde yi mu ne yaay ji nañ ñibbi nañ ñibbi yaa ji mën a lu tax mooy nañ ko bàyyi rek du dara buñ demee di nga amaat beneen doom yaay ji ne lu tax mu ne xoolal sa doom yaay ji xool rek gis doom ji ci gaynde yi yaay ji daal di tekki musóoram daal di takk ci ndigg li waaw dem jéem ko vër vër vër vër gaynde yi di ko xool mu ñëw jël doom ji daal di dem yoon bi gaynde yi laa lañu ki ma ko doon nettali fii la daan toog fii fii xoolal lu tax papa ji mu ne mu ne yaay ji nañ ñibbi moom xam na moom xam ne lii lan la ma ni loolu bis bu nekk ku xamul mooy dugg ci lu ay giraawaal yi gis nga ñii lu tax ñu sànni téere yàlla dañoo xamul waaye xam nga ne ku xam doo sànni téere yàlla sànni ko ginnaaw sànni ko.
waaw da ngeen de kitaabal laa la yàlla wax wara a zuhuri ñu sànni téere yàlla seen ginnaaw gëstuwuñu sax lu ko waral yàlla mu ne ka annahum laa yaalamuuna mu ngi mel ne ñoom xamuñu mu ngi mel ne ñoom jànguñ li daloon yahudi ba ñu sànni téere yàlla ñun nii moo ñu dal mbokk yi aaya yi ñu doon jàng te muy ñetti aaya ñeenti njëriñ lañ ciy jële ñeenti njëriñ bi ci njëkk mooy alfisqul am yantajul kufru kàccoore boo ko doon golobaale kàccoor lépp xam ngeen fu muy teere ci kufru képp koo gis mu ne kàccoor ñu naan diw ak a kàccoore diw ak a saay-sooy diw ak a wëyu xam nga fu mu ko jëme ci kufru parce que ku kàccoore lu muy def ay mbir yu sew yu bon yu salte xam nga loolu lan la koy jural mu nekk yéefir diw kàccoor la diw saay-saay la diw bandi la mbir yooyu lu mu koy jural mooy mu def ko yéefir inna al abd ida fasqa wa waasala al fusq an awamirillahi wa rasulihi sa yuaddi bihi zalika ila an yunkira ma harrama allah gis ngeen aw ma xalla allah nee na benn jaam ci jaamu yàlla yi su ko ak kàccoore duggee banditisme dugg ko saay-saay dugg ko mu continuer ci loolu xam nga fu mu koy yóbbu mooy mu weddi yàlla santaane yàlla wala santaane yonent wala mu fekk lu yàlla araamal mu daganal ko da ngay gis léegi nii eh, rajo yi rajo yi animateurs yu saay-saay yi ci nekk yu kàccoore yi ci weeru koor da nga naan leen lan dañ leen di woo téléphone ñuy sayite l'islam ah man de damaa sëy ak sama soxna ci weeru koor ñu ne dara nekk ci yow da ngay utaat keneen nga sëyaat ak moom damaa naan ci weeru koor benn pot ndox ñu ne non ñett la boo naanee ñett araam na benn dagan na dara nekk ci dégg nga est-ce que weeru koor weeru toll na weeru koor war nañ ci caaxaan xam nga jullit yi xamuñu ba léegi caaxaan bokkul ci diine caaxaan yonent bi saa salaam dafa toog ak di wax saxaabi lu caag mun leen nit ki lu mu wax rek yàlla bind ko mu ne leen benn saxaaba ne ko am ak indi bi sax dañ koy bind mu ne ko sakalat ka ummu ko yàlla na sa yaay ñàkk yàlla na la sa yaay ñàkk xanaa xamuloo ëllëg li ëpp li tax ñuy dugal nit safara mooy seen mbuubi ci làmmiñ lépp loo wax ñu ngi koy bind may ma tàndarma ma dog sax yi bind nañ sa togg bi tey neexul sax bind nañ ko loo wax ñu bind malaaka yaa ngi koy bind léegi nag yow nga nar a toog ci rajo te animateur yu Sénégal yi ak animatrice yi ñi ci ëpp ay kàccoor la te kàccoore googu lan la leen di jural mooy léegi dañuy dem di araamal lu yàlla daganal wala ñuy daganal lu yàlla xaraamal wala lu islaam ñaawal ñu rafetal ko wala ñuy wàññi yenn wala ñenn wala lenn lu yàlla jox gëdd comme imam imam lan la imam muy jiitu lislaam la ñuy wàññi imam yi wala weeru koor weer wi ni mu barkeele ñuy wàññi degere weer wi place wala weer wala guddi wala bis bu teddee jaamu fa yàlla dañ lay dubleel tiyaaba waaye mooy fa yàlla dañ lay dubleel ay bakkaar loolu moo tax kàccoore baaxul loolu dañ ko jàng fii ci benn aaya yàlla mu ne wa laqad anzalna ilayka ayatin bayinat waaye wa ma yakfiru biha illal fasiqun damaa wàcce téere téere boobu kenn du ko weddi lu dul ay kàccoor loolu moo tax kàccoore baaxul mbokk yi loolu dañ koy jàng ci aaya yi mu ne wa ma awjaba fa yakfur bi zalika wal iyaazu billah wala waa ji fekk loo xam ne dafa war lii ñu ne l'islam daf ko waral waa ji daal di ñëw weddi su ko defee kufru daal di koy dugg ñaareel mooy al yahud laa yaltazimuuna bi waadin wala yafuunu bi ahdin fa yajibu an laa yasiqu fi uhudihim abadan wallahi keroog ba ñu alquran waxee walan tarda anka al yahud wala nasara hatta tattabi' millatahum ba fii ñu toog septième siècle la ko yonent bi waxoon tey ñu nekk vingt-et-unième siècle yàlla nañu yahuud yi du ngeen wax ak ñoom dara ba ñu respecté ko loolu bi ko yàlla waxee ba léegi dajjeeku te du dajjee ko ba yowmal qiyaama ci waaye jullit yi ñoo yeewul ci seen alxuraan bi seen alxuraan bi la ñu gëmul seen alxuraan bi la ñu jàppul seen alxuraan bi la ñu wéeruwul loolu moo tax su leen yàlla waxee ñu ciy sikki sàkk su yahut waxee ñu ne non dama leen di wax rek Palestine bi ko yahut yi nangee ba léegi ñu daal di jël dëkk dëkk bi daal di koy xaaj ñaari parti ñu ne waa Palestine jël leen fii yahut yi yéene dëkk fii masjidul aqsa na nekk ci digg bi ngeen bokk ba léegi est-ce que yahut yi respecté nañ loolu duñ ko respecté parce que yàlla moo wax dëgg yàlla nee na yahut du mus a respecté lu mu wax kon bu leen am ci ñoom confiance ku wax ak yàlla fecci ko soo waxee keneen fecci ko xam ngeen lu tax yàlla mu ne bu leen takk jigéen juy bokkaale ci alxuraan xam ngeen lu tax yàlla wax soo takkee jigéen juy bokkaale dina la bokkaale góor li tax yàlla mu ne jigéen ñi bu leen góor guy bokkaale takk bis boo takkee bis boo amee jëkkër juy bokkaale dina la bokkaale beneen jigéen est-ce que xam ngeen yàlla ni mu toll waa ji di ko bokkaale pour mu dem fee bokkaale ak beneen jigéen loolu c'est facile wala tunkihul mushrikaati gis nga yàlla mu ne wala abdun muminun xayrun min mushrik wala ajabatkum nga nga am jëkkër jaam jaam joo xam ne du bokkaale moo gën nga am góor guy bokkaale ku takk jigéen juy bokkaale billahi wallahi tallahi boo amee jigéen jooju boo demee liggéey dina la boole beneen góor ndax respecté wul yàlla ku respecté wul yàlla ku mu gis falaxe la waaw waaw wala bi dañ ne jàppkatu jaan ragalul jiit jiit kuy jàpp jaan waaw loolu borom jiit faaliwul borom ji lu tax
jaan ñaari matt yi ban moo ko doole jaan mattu jaan ak mattu ji
jaan waaw léegi yow nga fekk waa ji jàppkatu jaan ba pare nga dem di ko indil ay kaña ak ay jinax du ko faale parce que moom mu ngi sommet kuy bokkaale yàlla ku yàlla di wax ngay lànk doo ko def gis nga kuy taat dafa jar jàkk munoo fexe ba fu muy liggéey mu fay nekk chaque jour munoo foog muy tardé tardekatu fajar tardekatu waxtu yi ku dul respecté waxtu yi du respecté dara xew leen ko ci diine ji ci lislaam bi gaa yi violé l'islam bi yëpp loo leen jox ñu violé ko moo tax yàlla mun nañu bu leen gëm yahud mun leen muus ak waane ba yahud yi ngeen fekk leen ñu leen ngir ñu leen di respecté yéen yàlla moo ñu waxoon ci alquran ne wala yazaaluuna yuqaatiluunakum hatta yaruddukum an diinikum in istataaw du ñu deñ di leen xeex est ce que arrêté nañ kañ la ko alquran waxoon septième siècle ñu ngi lan est-ce que jeex na ba léegi yahud yaa ngi xeex xoolal France xam nga lu fa xew fan yi ñu ne léegi nit ñi jàkka yi bu bu jàkka bi feesatee bu kenn julli ci biti parce que ci biti doomu doomu Jean-Marie Le Pen ki xam ngeen Jean-Marie Le Pen moo jiite woon deuxième partie ba ban bi gauche la walla droite ah extrême droite xam ngeen bi mu wax bi mu bi mu bàyyee doomam moo ko jiite doom bu jigéen xam nga lu mu wax nee na julli nii ñu ngi occupé France ni ko Hitler occupé woon nee na comme julli nii bu débordé jàkk ji fees ba nit ñi dem ni lal ci biti nee na noonu Hitler occupé woon France noonu la julli ñu occupé occupé France tey mënuñu nangu sax wala jigéen bu muur nii kanamam mënuñu ko nangu kooku waxu leen man dama yelle kooku boppam la muur muurul kenn mënuñu ko nangu Europe mënuñu nangu ñu tabax jàkka dafa sooroor mënuñu ko nangu ñun ñu ñoo leen xeñoo jullit yi ñoo xeñoo yéeféer yi mais ñoom fuñ ñu ëpp kenn du fa noyyi wallahi Sénégal tey bu ñu yahud yeeg nasaraan yi ëppoon fii kon jàkka ji kenn du ko tabax fii jàkka ji ci lan la sës buñ ñu ëppoon kenn du ko fi tabax moo tax ñun ñu war a yeewu gëm suñu diine mbokk yi yàlla moo nañu yahud du ñu respecté contrat ñetteel mooy at tawraat ahadu kutubullahi taala azza wa jal almunazzala anzalaha ala abdihi wa rasulihi moussa ibnu imran alayhi salam tawrat léeg-léeg nga dégg benn jullit def erreur ñu ne la tawrat téere yàlla nga ni déedéet du téere yàlla de ah kay tawrat téere yàlla la tawrat téere yàlla la de tawrat yàlla moo ko wàccee ci yonent bu tudd Moussa waaye ci biir tawraat instant bii ñu toll dañ ko dañ koo soppi dañ koo soppi falsifié ko léegi am na ancien testament am na nouveau testament am na injil Matthieu Jean Paul ak Luc nga boole ci ancien testament nouveau testament mu nekk six six livres fekk benn la woon six waaye original bi bi jóge woon kaw asmaan boobu téere yàlla la instant bi nag soo ko gisee def ci am waxu yàlla waaye am ci waxu doomu aadama waaye ba léegi am na ci yenn partie yoo xam ne waxu yàlla ngi ci des waaye am na ci yenn partie yoo xam ne li yàlla wax dañ kaa dindi ba mu set benn misaal aadama bi mu lekkee garab gi boo demee ci bible dangay fekk bible ne aadama bi mu lekkee garab gi dafa nëbbatu yàlla yàlla ñëw biir aljana di ko seet naan ko aadama ay na anta aadama foo nekk aadama nëbbatu yàlla
dama doon mën na ko seet.
nga ñëw ci alquran alquran ndeysaan gis nga di teg yàlla palaasam aadama bi mu lekkee garab gi rek yàlla dakaa woo wanaadaahuma rabbuhuma yàlla woo leen ñaam ñoom ñaar waxul yàlla dafa ñëw di leen seet dañoo lekk rek yàlla woo leen direct ne leen terewuma leen woon garab gi man leen na ngeen moytu seytaane seen noonu la ndeysaan ñoom ñaar ñu dem nëbbatu nag di nëbb seen awra ci garabu xobu garab yi aljanna ndeysaan moo tax bàkkaar baaxul saa yoo defee bàkkaar wuññeeku nga aadama dafa def bàkkaar rek wuññeeku soo defee bàkkaar même boo soloon ay yére wuññeeku nga say awra nee na dung ci biti yàlla ne ko aadama tere woon naa la garab gi lekk nga ko acca dama lay dàq aljanna sans droit wàccal yàlla wàcce aadama inde mu wàccee xawaa jidda ñoom ñaar ñuy dox diggante Inde ak Màkka ñaata kilomètre la ah est-ce que nit mën na ko dox Adama dakaa dox moom awa ñu wàcce ko jidda xam ngeen ñoom ñaar fan la ñu daje Arafat moo tax ñu tuddee ko Arafat ci montagne Arafat lañu gisee lu ko waral bàkkaar kon tawraat téere yàlla la waaye instant bi ñu toll dañ koo dañ koo soppi dañ koo def taxriif dañ cee dugal lu ci bokk génn ci lu ci nekkoon yokk nañ ci wàññi nañ ci waaye buñ la laajee ndax téere yàlla la waxal téere yàlla la ba mu nekkee original téere yàlla la ñeenteel mooy puufu jarimatu man tunkiru bi lil xaqi baada marifatihi baada marifatihi mbokk yi ñeenteel ci li ñuy jële aaya yi njàng léegi mooy mbonu weddi dëgg ginnaaw ba nga xamee dëgg gi dëgg gaa ngi nii nga weddi ko te xam nga ne lii dëgg la crime weesuwu ko wa yusbiku ka annahu jahilun minhu xam nga lu muy mujj nekk yow mi weddi dëgg da ngay mujj nekk jaahil jaahil mooy ku xamul dara jaahil mooy ku jàngul te jaahil baaxul yonent yàlla Moussa muslu na ci yàlla ci suratu Baqara ci nagu banu Israil bi lan la wax a'uzu billahi an akuna min al jahilin Isa ah Yusuf muslu na yàlla ci jaahil keroog bu ko xale yu jigéen ñu songee mu ne yàlla boo ma protégé wul ba ma sëy ak soxna yi akun min al jahilin yonent yàlla muhammad yàlla nee na ko fasdaq bi ma tu'mar wa arid anil jahilin jëhlu baaxul jëhlu jëhlu mooy réer réer mooy ñàkk a jàng ñàkk xam yow jullit nga ñàkk xam fooy teg sa tànk nga ñàkk xam nooy jaamoo sa boroom gis nga am na koo xam ne sax yonent bi da ko tudde woon bàyyi ñu réer abu jëhlin yow yaay bàyyi ñu réer ñi jëhl baaxul al jëhl asadd min al kufri réer moo gën a bon weddi yàlla al jëhlu asaddu min al kufr réer baaxul de mbokk yi jullit du réer xam ngeen ne réer lu muy jural nit ñaari ñetti ñetti raa la ñetti raa ñetti raa la réer mooy bu njëkk xam nga lu muy jur rëy boo réeree da ngay rëy boo rëyee xam nga lu mu lay jural réew rëy réer rëy réew nit day réer ñoo ci jàkk ñu defar sàppa yi ñu ne ko salaamaaleykum sa tànk yi mu ne nii rëy dugg na ko nga puus jege ko mu ne sa tànk bu ma laalee rek dinaa reewande ko saaga ci néegu yàlla am na jàkk ju ñu doon jullee ndeysaan jàkka jooju saa yoo saa yu ne bismillah nga puus sa tànk ne da nga koy dendaleeg benn tànk benn waaj daan la xoolal bul ma laal dégg nga li mu wax bul ma laal de ñépp a ko xam ci jàkk ji moo tax fu mu taxaw nit ñi dañuy moytandi soo ko jegee rek mu xool la nga xool ko mu sib sone la soo ànd la tànk mu ne la bul ma laal da nga lim léegal bul ma laal de ba fii may wax ak yéen man na fanweer yaa mu ngi ci jikko boobu ba léegi ba léegi mi ngi dund lu tax loolu réer réy réew réer baaxul mboolem musiba bi ngay gis fii réer moo ko waral réer moo waral nit di jaay nit di jaay ndékki ci weeru koor réer moo ko waral réer moo waral nit dem di ndékki ci weeru koor réer moo waral nit di jaay restaurant ci weeru koor di jaay ndékki ak añ réer moo ko waral te liñ ci am buñ du leen jëriñ tus da ngay yendoo jaay ba ngoon boo demee kër ga du la jëriñ dara di nga jaay ba walaa kaana da nga dox ba mokk yépp ordonnance nga koy jëndee dara la la dul jëriñ kenn du dimbali ñuy mooy yàlla ci weeru koor ñuy mooy yàlla kenn du leen dimbali ndimbalante kañ lañ koy def taawanu alal bir ndimbalante saa yoo ko déggee rek mooy alal bir wala taawanu alal ism ki bàyyi ba naaj bi tàng ki bëgg a ndékki bu gisuloon fu mu ndékkee te li ci gën a dee nag mooy am na ñoo xam ne dañuy lekk xëddu xale yi ba pare dem nag duñu woor xëddu nit ñëpp ñu lekk ko war a ñu dem bañ a woor te dañuy xëdd génn seen kër dem ndékki ñëwaat lekk ndog bi ñii yàlla nañ dee rek ñi ñoo bon
séeréer yi
yàlla nañ yàlla jubal yàlla nañ yàlla woon dëgg wërsëgal ñu topp yàlla nañ yàlla woon neen wërsëgal ñu bàyyi incha allah mbokk yi fi la ñuy yem ba suba incha allah question bismillah